asalaamaaleykum waa koy soxna soosu daf ma invité ci benn waxtaan boo xam ni mu ngi am ci Facebook bi ak YouTube bi ci chaîne bi ñuy wax Oumy caare TV ngir ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu am féexug mën koo topp euh, waxtaan bi nag thème bi mu ngi nekk sàmm sa kàddu sàmm sa kàddu loolu mooy nekk tem bi di sàkku ci ñëpp ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu amuk féex ba mën koo topp ñu mën koo topp incha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamualeykum